man mi nga xam ne dama teel a ñàkk papa xaw ma lu dul meer day doy waar mais damay ñëw ci côté làmb <clears throat> dañu gis ñu bëri nee nañ Siteu day topp social yi day topp malade yi day topp ñu yorul dara ba talut a entraîné parce que dañu gis ne làmb ji ñi la ci sut bëriwul te ci côté évolution maanaam ci doole dañu gis des fois sax amoo combat doo sa bopp wala duñ génn gis benn développement bi ci yow lan ngay wax ci amateurs yi nga xam ne dañuy si loolu noonu. waaw amateurs yi ngi leen di remercier parce que tey dama nekk mbër boo xamante ne ñun fii gox bi ñu nekk ñun dañoo am exemple yu bari am naa benn grand boo xamante ne Siré Seras la tudd grand boobu ba léegi dama koy xalaat ko bi ko tafaagee di jël si fii jàmm gën ñun ñëpp a baabu boobu li fa dajalee si mbooloo mënu ñoo xam nu mu toll jël ko ne da ko bëgg a yóbbu Fass ngir nuróo bu nuróo nag tafaagee hmm. ñu gis fi ay ñoom isaapu yi. gis fi ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne si gox bi lañ dëkk mais benn slogan moo fi yàgg a daw dañ naan mbër bu réussir faalewul kenn di jëntiwul kenn boppam rek moo ko ñor tey bi may am kër ñu bari dama leen di dégg ñu naan Siteu da war waroon dem ut kër feneen ndax nga noppali ko ndax parce que xale yi duñ ko may jaam man kenn du ma sonal fii man ku ma sonal man la neex fii wallaahi kenn du ma sonal man maay bëgg sañu ñu ma parce que tey su fekkee ne tey dama siw man su ma xewlee ñëpp ñëw mais bu ma paree dama si laa war a dem jël sama temps dem di entraîner mais damay entraîner mais dama si boole nit ñi dem dëkk ak ñoom dugg seen biir comme ni ma doon dundee loolu laay def chaque jour moo tax ma dëkk jàmm gën bu léegi mais damay entraîner chaque jour man damay entraîner chaque jour damay entraîner bu ma demul saal maay diin mais sa waay bu la nit ñi yaakaare nooy def mm. mënoo lu dul dimbali leen. Mm-hmm. man weer rek bu ma ko jógee jàmm gën jàmm gën dañ koy yëg. Mm-hmm. da ngay gis ay ndaw ñoo xamante ne dañ leen di yóbbu prison te duñ def dara ay xool ni rek neexu la rek nga yóbbu ko kaso nga nekk am détenu nga gis jeunes yoo xamante ne dañuy jël alali jàmbur boo lañ laajee lu tax ñuy jël alali jàmbur dañ naan la gaan du la fen de dañ la koy wax nii nga dégg ko dañ naan la du ma la fen deret tuuru moo gën gàcce. parce que ñoom dañuy juddu si kër xamuñu métier amuñu benn métier mais sa waay boo man bu ma toogee sama yaay dem si guddi muy ñaxtu naan man de bu ma amoon deux mille cinq cent suba ma xëy lii laay dem jënd pour xale yi pour def nii sa ngay dégg loolu. sa biir ndox nga koy dégg yow boo xëyee def amul dara da ngay dem sàcc wala nga agressé nga gisee nit ñoo xam man damay am combat man damay jël sama xaalis di ko def si ñoom pour nit ñooñu ñëpp kenn ku si nekk. pour nga mun a xam lu ma la nga satisfaire au moins nga bàyyi lu bëri pour def la mel ni ñu dañuy yaakaar ne yow da ngay favoriser booy gaay gaay gaay gaay lii yëpp lii yëpp si ginnaaw moo bari man damay dund coono yu métti ay coono yu garaaw man bi ma nekkee booy laa commencé jël sama responsabilité am na ñoo xam ne man maa tax ñu bàyyi banditis man maa leen taxal jabar du ma ko cité ku mel ni Ibra Dieng kooku ab ma nekk xale ba léegi dama ko tax buñ ko doon jàpp kaso sax dama ko doon wax am maa ngi ñooy ànd mais daf may dóor dóori mu a dem rek mais loolu yëpp dama ko dund fii am lu ma bi ma amee quinze ans la sama papa gaañ mais dama dama dund ay affaire yu bari fii walaay am man sama gox ma ma mos a ñor walaay man dama mos a bañ koo xamante ne jël alal jàmbur wala ngay def loo xamante ne ah. du dëgg man dama ko mos a ne di bu dee njàmbaar moo lay rey sax da ngay téye a man dama mos a gëm la. man coow yi ma coow yëpp ay nit ñoo tax may coow.